ngeen jox ko askan wi nga xam ne amaguñ ñu téewaale gun te bu amaatee leneen dolli comme ni ko sama naataango bi waxee léegi rek lii dugguleet te gannaaw tuuti bi ñu xeex Covid bi jënd na produit d'entretien à hauteur de deux millions remettre ko sous-préfet bi mu paree jënd na ay masques yu takkoo takkoo ay junni junni masque jox ko askan wi ah tey jii mu dellusiwaat joxe toll ci quinze tonnes yu ceeb too ko évaluer muy ñetti di saakoy ceeb dimbalee askan wi ñi nga xam ne amuñu woon mu taxaw dimbale leen xas ne ay ay njabootam lañ ñii ay nijaayam lañ ñii ay comme ni ma ko waxee askan wi nga xam ne wax dëgg yàlla fi ñu toll ci nawet bi Covid bi laal leen ñu bari liggéeyuñ mu ne ne vraiment na ñëw soulager leen dimbale leen. wàllu ndox mi ak courant bi courant bi ci lay njëkk wax courant bi moom jafe-jafe la ci commune bi ni mu nekkee jafe-jafe mooy ne benn projet bu ñu naan EDR benn concessionnaire la. moom lañ dénk courant bi fii mi ngi mi ngi koy jaayee euh, unité bi euh, kilowatt bi trois cent seize francs alors que mi ngi koy jaayee moins moins de quatre vingt dix branchement bi problème la euh, six mille francs par par niveau la am na niveau un niveau deux niveau trois niveau quatre day tourner à hauteur de soixante six mille francs boo bëggee branchement waaw metti na trop courant bi métti na trop ci askan wi fii jot courant bi yombul Ah, nga dugal ko sa kër yombul mhm. te dëkk yi am courant sax dañoo bëriwul mhm. waaw foofu ñu ngi lancé ah, à la Sénélec mhm. au président de la République par le biais de son ministère ministère de l'énergie mu jàppale village yi nga xam ne amuñu courant parce que Tataguine des nañu ginnaaw trop trop trop ci courant ndox mi dafa cher moo gën mooy mooy li nga xam ne moo gën a métti kër yu bëri amuñ ndox kër yu bëri amuñu ndox ah, te aussi dafa cher dafa cher bi bu njëkk mi ngi xamoon dem ci teen léegi ku ne xam na ne nappe bi dafa daw képp koo xam ne ah, ingénieur nga wala xam am nga xam-xam ci ndox rek xam nga ne nappe bi daw na. moom moom wax dëgg yàlla ni ngay gis ni ni mu yaatoo yëpp pour nga gis fi eh, fukki ker yoo xam ne am nañu robinet déedéet ay ñaari kër ñetti ker te ñooñu pour nga dem foofu pour am ndox day jafe ci ñoom parce que koo xam ne liggéeyul amoo koy liggéey pour nga dem fay pour xejal ci sa morom day jafe mhm. waaw mhm. waaw fu mu nek ni mom am am nañ jafe-jafe ndox mom jam jafe-jafe ndox mom am nañ ko mhm. waaw bu baaxa baax maire bi mom def ni digi rek waaw def ñuy mo te digaté bi mom yag na <laughs> wante jotaguñ ci dara <laughs> courant amuñu amuñu ko waaw xam nga fi ndios mom la bu ñu buggee bu ñu buggee wallu wala ñu bugg salsé il faut ñu passe dem ba wala ñu passe dem ba léegi nak bo amulé pass nooy def mhm. xam nga né loolu loolu metti na mhm. wa amu courant mom am nañu jafe-jafe bu baaxa baaxa baax mhm. wa courant mom amu fi bala ngay charger wala nga bëgg a wallu ñun jigéen ni il faut nga dem tata Tattaguine wala nga dem ba Thiadiaye wa xam nga né kon fofu amul courant wa nga bëgg nga sa bëgg sa doom bëgg jang il faut nga dënd nga jënd torche wala nga jënd sondel ta xam nga né loolu ku ku liggéeyul mënoo chaque jour nga bëgg jënd sondel wala nga bëgg jënd torche metti na bu ñu amoon ndox moom mm. maraîchage bi moom macha allah mm-hmm. waaw ndax dañuy béy ay kaane mm. ay li bisaab mm-hmm. waaw loolu la ñuy béy mm-hmm. wante jafe-jafe ndox bi daal mooy affaire bi